mbokk yi asalaamaaleykum yéen a ngi ànd ak euh, seen télévision Baol Time euh, tey jii euh, ñu ñëw seen premier numéro seen émission bu ñuy wax aar ak si biir muy émission bu nga xam ne 100 cent culture la si diwaanu Njaareem ak ko wër mais Sénégal en général mu nekk émission bi nga xam ne ne yéen ko dem laaj si seen sit internet Baol Time TV ñu koy def incha allah rabbi samedi bu jot seen émission aar ak li si biir tey jii war li waxtaan si ñaari ponk benn bi mu nekk si journée mondiale du théâtre euh, beneen bi moom mooy euh, ñu waxtaan si domaine culture en général euh, culture li nga xam ne ne tey ji compétence transférée la mu nekk loo xam ne lu am solo la di leen fàttali ni si Louga muy festival national des arts et bi nga xam ne mi ngi am si année bi Diourbel moo jëloon premier prix danse bi bi nga xam ne un million de nos francs la daneen ko jagleel artistes yi nga xam ne ñoom ñooy waa Lergue de Mbacké ñoo nga xam ne ñoo représenté woon dignement la région de Diourbel théâtre Euh, am na ay groupe yi nga xam ne euh, si diwaanu Njaareem la nekk ak li ko wër ku mel ne Nouveau-Né lépp li nga xam ne liggéey na ko si goxam euh, tey ji mu ñëw wane ko group bi ñuy wax xale jamono bi nga xam ne aussi mi ngi nekk kër gu mag ñoom aussi war neen wane seen bopp compagnie théâtrale Nouvelle Vision moom aussi war na ñëw wane seen bopp Futur Talent ñoom aussi war nañ ñëw wane seen bopp wane lu ñu liggéey seen gox këllu bawal aussi war ne wane seen bopp troupe bi ñuy wax CFA muy troupe bi nga xam ne ñoom Habib ak ñoom aada boobu ñoom ñoo ko diriger ñoom aussi war nañ wane seen bopp euh, kon euh, ñu ñëw si journée bi journée mondiale du théâtre dafa am lu ko waral tey jii àdduna wërbal këpp dañuy màggal journée boobu mu nekk journée bi nga xam ne chaque année euh, Diourbel dañ koy màggal mais suñ koy màggal dañ koy màggal si ay difficultés ay difficultés si wàllu moyen ndax ku wax théâtre wax compétence transférée ku wax théâtre wax ne kii di monsieur le maire la commune war na leen jàppale jàpp naa ne dugal na ci loxoom ba mat sëkk conseil départemental aussi compétence transférée la mais aussi jàpp ne ne euh, si surtout yu ñu am euh, dugaluñu seen loxo ci wàllu euh, journée bi journée bi gars yi dañoo jirim euh, théâtre dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo wax leen ne troupe bi nga xam ne mooy troupe festival national des arts et culture bi nga xam ne chaque année moom mooy représenté dignement la région euh, sooy xool dixième édition yëpp ñi nga xam ne def neen ko soo xool cinq éditions yëpp Diourbel moo ko jël si wàllu théâtre di leen fàttali ni en 2015 fële si Kaolack Diourbel moom mooy jëloon premier prix si wàllu théâtre mais aussi jël grand prix Douta Seck grand prix Douta Seck nag suñ ko jël dafa am lu ko waral mooy discipline bi compétition bi yar bi teggin bi ak wàllu accoutrement yi nga xam ne dañ koy sol muy wàllu défilé bi ñuy def euh, si parade bi mu nekk loo xam ne vraiment lu am solo la euh, ñu am benn euh, jàngat bu ñu jàngat nag si wàllu théâtre xale yi nekk fii si diwaanu Njaareem tous les troupes dañu bootu si benn association bu ñu tuddee ARCO mais am na troupe yoo xam ne ñoom dañ ne duñu bokk si ARCO dañu préféré nekk seen coin di liggéey seen liggéey mais dañ ne ARCO ab association boo xam ne ne euh, affaire copinage la léegi nag loolu nañuy xool ndax lool lu am la wala lu amul euh, en tout cas lu si am solo ba am si solo mooy euh, culture bi dafa am jirim fii dafa jirim au diwaan si diwaanu Njaareem au niveau de la région muy diggante bambay diggante mbakke diggante Touba diggante Diourbel te ñu xool soo xoolee Touba ñoo mujjee dugg si théâtre mais lu fa nekk si ay troupe jéggi na dayoo ba daaw sax si audition yi nga xam ne moom lañ defoon si festival national des arts et culture représenté nañ seen benn troupe mais lu fa nekk si troupe ëpp na 54 troupes te est-ce que troupe yooyu tey état reconnaître na ko est-ce que troupe yi ngay dégg si diwaanu Njaareem am nañ récépissé loolu foofu neen war a dut suñu baaraam euh, xool euh, ndax troupe bi structuré neen ndax suñu structuré ñoom fan neen war a dem muy seen kër kër gi mooy fan. la maison de la culture mooy fay centre culturel régional de Diourbel kan moo ko jiitee madame Siraba nekk directrice centre culturel nga xam ne moo fi représenté dignement la le ministre de la culture jàngat ci wàllu festival national des arts et culture xam na ne chaque année Diourbel dafay dem saa nu demee indi ndam saa yu ñu demee ñëw indi dara toujours suñuy dem di am ay problème mu finance di ket à gauche di ket droite la war nañ ko xoolaat. ñu dem ci biir euh, xool lan moo fa xew kon sama caméraman dafa bëgg ñu ne coow dem ci biir euh, centre régional du Diourbel xam lan moo fa xew incha allah rabbi ayca su njaareem yi. jàpp leen ne monsieur le maire yéen ak moom partenaire ngeen loolu la ma yóbbante naa ne naa leen ko wax lépp lu ngeen di yëngu suba ba ngoon jot mu mu mu yëg ko dina ci ñëw te ngeen xam te lii nga xam ne euh, culture compétence transféré la man mii nga xam ne man la ko dénk bu ma taxawee tey di wax damay am mbégte ci seen kanam ay ndaanaan ngeen ay ndaanaan laa fi gis. festival national des arts et culture. ñu am euh, ay partenaires yu mel ni mairie bu Diourbel jàppoon ci bu baax jàppale artistes yi comme ni mu koy faral di defee euh, ñu dem yàlla def ñu dellu si yàlla may ñu ndam ndax ki nga xam ne moo jóge leer gi de Mbacké ñoom ñoo représenté région de Diourbel jongante ak 14 région di Sénégal daal di jël prix premier prix danse prix boobu nag ñu ngi ko doté de 2 millions de francs CFA. chèque bi la ñuy remettre tey officiellement si ñi nga xam ne ñoo représenté woon groupe de danse bi seen président taxaw ni di max Mahfous Mbengue donc damay jox rek madame le maire l'honneur mu remettre chèque bi officiellement au nom du gouverneur de la région mais aussi au nom du maire et du président du conseil départemental de Diourbel. yàlla hmm. ci li nga xamante ne doomu Bawal moo ko gagné tey ji hmm. kontaan nañ trop. tey jii ñu ñëw fii si troupe nouveau-né euh, jàkkaarloo ko benn xale bu jigéen soxna si na nga def. maa ngi fi. Euh, tur wi naka la. maam Awa Jaxate. mam Awa lan moo la dugal si théâtre. man théâtre bi mu ko am suba ba ma ci jàppale c'est la première fois ñëw def ba ni ñëw salle bi dañ dégg ngeen way way bu neex est-ce que mën ngeen koo yëkkati euh, seen télévision Baol Time seen émission bu ñuy wax aar ak si biir am exclusivité bi. leen dellu suñu nitu xam-xam yi ku mel ni Maam Bamba Tuuba ñun suñu naree roy nañ imam Malik Si bu Kunta sa Ndiassane la jeunesse ñëw liggéey. Euh, tey jii ñu jàkkaarloo ko lii suñ ko gisee xam ne ne histoire la lii suñ ko gisee xam ne ne Lat Joor Ngoone Latir Jóob la lii suñ ko gisee xam ne c'est le roi du Kayoor lii suñ ko gisee xam ne kii mooy Damel Teeñ euh, lan moo waral Lat Joor. que dafa xeex xeex tubaab bi. pour que nit ku ñuul am jàmm loolu moo tax ñu tey ñu solu Latjoor Jóob mu ne Jóob ngeen jëf yéen a ngi ànd ak euh, seen émission bu ñuy wax aar ak si biir seen télévision Baol Time euh, seen émission premier numéro bu ñuy wax aar ak si biir dañuy introduire euh, ki nga xam ne ne artiste la nekk ndongo la numéro 2. da ngi dellu ziar bu baax a baax a baax a baax. looy may aar ak si biir. su ma fàttali ko sama yaram daw ma jooy su ma xalaatee xol bi fees ma jooy fi ma jaar ak li ma weesu ba fi ma toll tey. ma si dunya yokku na ma jom way bëgg naa fonk naa ràññe naa ki ma doon soppu naa te bëgg naa fonk naa ki ma doon. merci kii mooy Ndongo numéro 2 euh, di wax ne yéen a ngi ànd ak seen télévision Balok Time seen émission aar ak si biir euh, di introduire mon ami mon frère Jabaay Jabaay digganteem ak Collé Texet kenn ko présenté si wàllu théâtre euh, Lamine Jabaay Jabaay ana Collé Texet. Kolle ma nga fa. mu ngi yaa ngi ànd ak euh, seen télévision Baol Times seen émission bu ñuy wax aar ak si biir tey jii suñ premier numéro euh, nga jógee ba Touba Mbacké. théâtre doon na loo xam ne kam ka ñun dañ koy dundal ba pare di ko dundoo ba pare nag di ko dundal ci xeli nit ñi. kon jàpp naa ne tey amul lenn lu dul bis bi képp kuy artiste comédien nekk fii senegal ak nga nekk bitim réew bis bi tey nga am bis bi moo la ñor bis bi ci ngay wasul sa àq lépp loo doon def ci théâtre ngir jëmm bis bi ma kon ñi ngi rafetlu waa Jurbel liñ ci def ak liñ ci jàpp ah di leen nuyu baax di nuyu waa Baol Times di leen ñaanal liggéey bi ni liggéey yàlla defal leen ci barke am sunu xol sedd na sunum xel dal na wax dëgg yàlla am nañ mbégte am nañ mbégte Cheikh am nañ mbégte merci beaucoup Jabaay euh, kon sama caméraman dañuy dem si biti rek xool lu fa xew après ñu dellusiwaat madame la directrice yaa ngi ànd ak euh, seen télévision Baol Time euh, seen émission aar ak li si biir euh, tey ñëw fii si centre culturel régional de Diourbel tey jii ban yëg-yëg nga am en tant que directrice du centre culturel régional de Diourbel. waaw jërëjëf Cheikh yëg-yëgu euh, mbégte donc tey bu yàlla dogalee ñu toog artiste comédien yi nekk diwaanu Diourbel dajaloo bokk ndey bokk bàyyi ñëw daje centre culturel mbégte lay doon ci ñun ñi nga xam doon également parce que xam nañu euh, ñoom li ñuy def mooy partager seen joie partager jàmm ji ñu am partager bànneex bi ak li nga xam ne moom mooy la valeur du théâtre donc dañ cee am rëy waaw xam nga aar moom dafa yaatu te Diourbel dafa nekk région boo xamante ne macha allah région bu bëri ay talent la Euh, loolu moom moo tax saa yu ñu demee fas nag yàlla day dogal du ñu ñibbi si produit yi chaque fois dinañu indi ay prix du premier di deuxième mbaa muy troisième donc ñu seetlu ni euh, depuis Fesnac existé en dix ans d'édition benn trophée rek moo ñu manqué woon théâtre ñëw na musique ñëw na am nañ ay prix spéciaux bu jeex mais danse kese moo desoon yàlla dogal tey danse ñëw danse ñëwee mu nekk mbégte mu rëy parce que boo xoolee diggante 2015 ak 2017 dajale nañu trophée yi nga xam ne comme fees naag moom la mettre en compétition Euh, nan nga gisee seen émission aar ak si biir ak euh, télévision Baol Time. waa xanaa kontaan si yéen parce que man dama koy wax très souvent dafa mel ni aada ak caa aada ak euh, cosaan si Diourbel Baol Time saal moom ñoo jël pay <laughs> ñoo jël pay parce que chaque fois dama leen di suivre ci net bi mais damay gis ni que dafa leen intéressé trop lépp lu xew ci région bi mu jëm ci loolu ak au delà de la région ay information yoo xam ne vraiment dañu koy taataan ku ci dem ci bowl Time si seen site incha allah da koy surtout mu jëm ci wàllu culture waaw vraiment di leen ci encouragé di leen ci félicité. madame la directrice ñoo lay gërëm. sama caméra topp ma euh, ma ñëw madame euh, Koutaye euh, bi mooy représentant maire de la commune madame Koutaye ñoo nuyu. waaw ñu ngi lay. yaa ngi ànd ak seen télévision Baol Times seen émission bu ñuy wax aar ak si biir. maire ay partenaires la jàpp incha allah ñaan na yàlla balaa mandat bee jeex dina ko doxal li mu mbëbët dina ko doxal incha allah. kon ñun lépp loo xamante ne def nañ ko ci defal nañ ko artiste yi honorable député Malick Fall lañ ko defal. ok merci madame la maire. waaw ba tey yéen a seen télévision Baol Times ñu ñëw. toog fii si centre culturel régional de Diourbel euh, monsieur Djibril Diop ñu ngi lay nuyu. yaa ngi ànd ak euh, seen télévision Baol Times seen émission aar rek si biir. la nga xamante ne nii moo ñu permettre tey sunu xale yi. di roy di xool li nga xam moom la nga xamante ne nii dinañ ci mën di rectifier di ci man di jàng di ci man di yaroo pour am éducation bu baax moo waral buñ conseil nga jox xale yi nga xam ne dañ dugg si wàllu culture te xamul fu ñu teg seen tànk waaw ñoo ñooñu dama leen wax rek ñu am royukaay royukaay bi ñuy am moo di di xool ñi nga xamante ni ñoo leen jiitu ñu taatan ci ñoom te yaakaar naa buñ taatan ci ñoom topp si ni tam yaakaar naa dinañu dem ci kanami kanam loolu moom xam naa ko baax a baax a baax a baax. yaa ngi ànd ak seen télévision Baol Times seen émission bu ñuy wax aram ci Donc, ce que je ressens, c'est une grande joie de partager ce plateau avec vous pour une première fois. Mais je ne suis pas nouvelle dans ce centre culturel euh, parce que depuis des années, je fréquentée avec Tidiane Bay. Euh, donc, c'est en fait vraiment au service que je connais bien. Mais li may yëg mu fi ay talent ay nit ñu surtout la directrice qui m'a beaucoup impressionné parce que képp ku taxaw yaa ngi taxaw di ko gërëm di vraiment euh, di def éloge am ça pour kon gaynde gu mel noonu ñu koy wooye yombul lu jafe la kon nit ku dëggu rek moo ko man parce jigéen moom comme ni ñuy wax royukaay la jigéen war na fu mu mënta nekk mu nekk une copie et puis nit ñi di ko def idole parce que pourquoi ça waxuma suñu yaay it mais jigéen dafa wane boppam déjà li ñu wax ci centre culturel bi rek directrice bi fi nekk kon tey jii ñun ñu fi toog nii di ko seetaan rek kenn ku ne xam nga la fi lan jigéen wan la war a toogee mm-hmm. parce que ku xool aussi jigéen ñi am nañ fi ñeneen ñeneen on a vu